waaw ah, jërëjëf sa ci nuyoo bu am eh, solo boobu nga xam ne def nga ko yàlla yàlla defal la tawféex bu baax a baax. amiin yàlla fay la tey lépp loo xam ne yaa ngi ko fi jàng daal nekk njëriñ ñeel xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. oustaz di ñëw ci laaj bu njëkk bi. muy mhm. laaj boo xam ne interdiction la. Mhm. ñu dégg ko ci sa ay waxtaan. nga doon wax ci diggante àdduna ak alaaxiram. ngay wax ne alaaxiram mooy aawo àdduna mooy jéeg bi nga xam ne da koy labar waaye doo ko takk. mu mel ne loolu njàngat mu rëy rëy mu mm-hmm. bare bari dafay dikk ci jullit bi nga xam ne mu ngi bàyyi xel àdduna mm-hmm. waaye jullit bi nga dafay bàyyi ngel xel alaxira mm-hmm. soo ñu doon tojal ñaar yooyu muy alaxira ak àdduna aaw bi ak ki nga tëkkut lan mooy seen différence jërëjëf bisimillahi rahmaani rahim subhanaka laa ilma lana illaa maa allamtana innaka antal alim hakim si cheikh mag mi bu ñu masaa ne tiim ab am prix danañ ko firi danañ ko tekki danañ ko tawil mm-hmm. moo tax ñu daan dégg yëf mm-hmm. danañ ko firi danañ ko tekki danañ ko tawil mm-hmm. moo tax a dunya ak al axira ñoom buñ ko firee ba tekki ko dañ koy tawile ab jeeg bu tudd al ak jigéen ju tudd ak dunya al axira góor ñi fa leen jógee fegale fa mooy seen aawa ak dunya mooy ñaareel bi ñu bëgg ñaareel di ngoro ba xëy génn àdduna loo am jox ko loo xam wax ko defal ko defar fi ak kër gu rafet pour moom al axir moom di xaar rek noonu la ko maa ngi daan def te suñu jax li ci yéeme baatu ad dunya ak al ñoo tolloo lu ñu wàcc ci alxuraan bu ci nekk fukk ak juróom ñoo tolloo képp loolu li muy tekk mooy kon nit ki di fexe ba équilibré ñaari yëf yi. balancé ko balancé ko. Mm-hmm. te loolu mooy maanute ci moom. Mm-hmm. loolu lañuy ñuy firee yëf yi tey ñi ñi ñi yeewu dañuy dañuy dañuy trans dañuy transféré seen mandat. mu mm-hmm. dem ci al axira aaw bi. ndax kii di di di addunya dafa dafa fiir ba nga xam ne nanguwut nga def lu baax muy dem foofa. parce que xam na ne. lu waay def ci lu baax ci aaw la jëm. ci misaal lu waaye def ci lu baax fu mu jëm ci àllaaxira dina di la fa xaar kii nag day lànk moo tax boo bëggee def mooy la li ngay def nangam dana fex daal ba doo def léegi nag ku dem àllaaxira yóbbu loxoy naan moom du la mën a toggal añ parce que bàyyi woo fa dépense waaw joxewoo moo tax ñu yeewu li ñu am lu mu bari bari ñeme nañ ko joxe parce que seen dépense ëllëg li jeex na mhm. tey si jeex bu fekkoon maa ngi dañoo am ku nekk cinq milliards ci banque bi mhm. bu ñu jëlee benn milliard ñaata la ñuy dese. 4 kenn ku ne dana dese 4. kenn ku bu dee ci àllaaxira bu fekkoon da ngaa am ci banque bi cinq milliards. nga jël benn milliard ba tabax ko jàkk ba tey cinq milliards nga am. seetloo ko. dëgg koy ful. waaw. ba tey fi ne sa milliard bi ginnaaw dafa jóg dugg ci yàlla rek. ba tey ma nga fa ba tey ma nga fa. boo ko jëlee nag léegi lekk ko wala nga nangam ba tey léegi nag dafa dafa manqué. maa indakum yan faddu wa maa indallahi baax loolu nag niveau bu am solo la ci wàllu joxe wa shukran ci laaj bu am solo bi waaw ah, jërëjëf sa ci leeral boobu nga xam ne yaa ngi ko doon leeral ci diggante àdduna ak alaxira ci relation yi nga xam ne moom la doomu aadama war a am ak bu ci ne mu mel ne njàngat boobu am na solo lool ci diggante lu nit ki bàyyee xel am bu déggee kàddu yi mooy doomu aadama war na liggéey ngir ëllëg yomal xiyaamatu mhm, akbar mhm, mën a am njëriñ mhm. waaye liggéey bi ndekk ci àdduna la koy defee mooy li ko yàlla dénk ci alal mu koy dépense ci yàlla jot gi mu am mu di ko def ci yàlla lépp loo xam ne am na ko daal mu di ko consacré di ko def ci yàlla loolu day tax bu ëllëgee mu fekk fa añ boo xam ne fii la ko liggéey woon ci àdduna macha allah kon loolu njëriñ la lu am solo yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp